ahousubillah bisimillah inna wali sëriñ tuuba jërëjëfe sëriñ tuuba jërëjëfe cheikh ahmadou bamba xaadima rasul bi barakati cheikh ahmadou mbokk taalibe ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu fi teew ñëpp di góor wala di jigéen ñuy am mbégte teew ci barab bu tedd bii pàkk bu tedd bii ci bés bu màgg bi nga xamante ni moo ñu fi dajale. mu mel ni li sabab màggal gi moom jàpp naa ne ñëpp a ko xamandoo wala boog ñëpp a ko xam li ko sabab mooy daje bi nga xamante ni maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal daaru daje woon nag ak sëriñ Touba gannaaw bi mu jógee ci tukki bi te dénkoon ko njaboot gi gannaawam bés boobu tombeek fukki fan ak juróom ci weeru saabaan moom lañuy màggal tey. kooku moom jàpp naa ne lépp lu ci nit war a xam borom xam-xam yi nga xamante ni loolu rek mooy seen liggéey def nañ ko ba mu mat sëkk li sabab nag ñun ñu koy defee fii lenn dong la mooy dañuy ay murit te ab murit moom lépp lu muy def da ko war a teg ci ndigal gannaaw bi ñu bokkee ci ëttu Cerno tënku ci kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ki nga xamante ni moo fi nekkal borom daaru di sëñ Basiru Antañang jot ndigal ci Serigne Touba Serigne ak ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndax moom lañu waroon jiital ci nuyoo bi ak ziar bi ak njobootuk sëriñ Touba gépp mu jotee ndigal ci moom ñu màggale màggal gi ci anam bii mu jàllale ko ci njaboot gi joxe ci ndigal moom it ñëpp tënku ci tënku googu ci ñëpp tënku moo ñu sa moo sabab ñu ne ñu ñëw màggalee ko ci ëtt bi ndax dañoo wax ne fu waaye nekk na ko fa màggal mu mel ni fu kër Cerno nekk rek. wala taalibe Cerno nekk fa jay tey jii ñu ngi koy màggal fa ñu ne loolu mooy mooy li sabab ñun ñëpp ñu daje fii ñu nit ngir màggale fi bés bi màggal fi guddi gi guddi gi nag ak bés moom weesuwul jàng alxuraan durus xasida yi def zikurullah ñaan sunu borom subhaanahu wa mu wàccee jàmm ci réew mi wàccee ko ci askan wi rawatina ci mbokk jullit yëpp nag loolu daal sëriñ bi mooy li nga xamante ni moo ñu dajale fii moo dajale mbokk taalib yëpp fépp fu mu mënti doon ci senegal wala ci bitim réew. li ñu ciy dolli sof ko ci suñuy kàddu ñun mooy sant mbokk taalibe yi ci taxawaay bi ginnaaw ba ñu jotee ndigal li ci see Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu jóge ci Serigne Bassirou Anta Niang jóge ci Serigne Mountakha mu mel ne yoon wi li mu baaxoo moom mooy murit ndigal ndigal jëfee mu mel ne bon bi ñu jotee ndigal li wax dëgg yàlla jëfe nañu ko bon ñu ciy sant mbokk taalibe yëpp seen taxawaay. muy góor ñi muy jigéen ñi ci turu diwaanu Bamba fépp bu see Ahmadou Kara Mbacké ni di ñaan ñu teewaat ko ay déwén yu baree baree bari yu ànd ak wér ak xéewal te mbooleem li sabab tey sëriñ bi joxe ndigal fu waaye mën a nekk mu màggale fa bis bi ci jàng alxuraan ak xasida ak sikrullah ak julli ci yonant bi ñuy ñaan suñu boroom bu déwénee ñu dajawaat ñun ñëpp biir daaru muxti defe ko comme nañ ko daan defee ci barkeb si Ahmadu Bamba Xaadim sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp di nuyu suñu yaay ji ci biir kër gi di soxna Njóoba Amar nga xam ne mooy soxna sëriñ bi nekkal ko fii ci tuubaa Daaru Marnaan mu mel ne moom bu fi nekkee moom mooy jëmmi sëriñ bi mbooleem biñ jotee ndigal ji ba léegi lépp lu ñu fi def mbaa ñuy wax ko ci dañ cee am ndigalam man moom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan suñu borom yàggal ko fi dëgëral ko mu gunge njaboot gi ba ca kanam a kanam ci barkeb si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di jaajëfal ñëpp ci turu diwaanu Bamba fépp ba'da salaatina alal waxiid te seetlu yoneen ya ñëwoon ci duniyaa faxakadun lan woon ku nekk woy يسل خير الخلق أكسابام يا كتب يلا بن مولم جام يا تول مدم ينا وما محمد إلى رسول قد خلت للمدان دنيا bu doon kërug saxoo diyaali xayrul wara waa Makka dun ko jaali waaye la yóbbu Ahmadul Makkiyu jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ku dul Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëfe teeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jim ra fa am dellu si waat ak alif dal mim ra jim fa ذاك أليف دال ميم را جيم فا را جيم فا أنا فنو باوو lana funnu baawoo ca yàlla fa la nuy delloo bule buur mooy kii moom anaaf fa yàlla fala nuy del yawmal qiyaam fala nuy del billahi

cheikh Modou Mame Maréme ana fu nu baawoo ca yàlla fa la nuy delloo fa la nuy delloo doon tey buur boobee nu moo bule buur mooy keenu moom ana fa yàlla lanu baawu wóor na yàlla ana fu nu baawoo fa yàlla lañu baawoo Cheikh Modou Mamare ana fu nu baawoo yàlla buur kenn la ana fu nu ca yàlla fa la nuy delloo fa nuy delloo doon tey buur boobee nu moom boobule buur mooy keenu moom ana

fa sëriñ Touba dama ñàkk solo te bëggoon ku ma yaa ka nuru soppe Bamba borom Touba makke bu ma kenn jàkk naa kii kana di ma jaawale ak ku dul borom Touba